message bu ne dégluwul ma naa leen làkkolof tamit nanu gaaw tuuti rek man sedd bi mucc ci ah du ma gënal de hmm, duma ma gënal de la ma yor ca saraxataan yor ko ci gooy ak nàkk ah préparé sama bopp <laughs> du ma gënal de waaw nanu ñëw rek amul problème sax dafa am affaire amul ngaañ sama affaire amul ngaañ lewet naa doom di jabaru jaboot yaru lool mën a muñ tubarkaat la ah ku ma takkam jabar de gaaw leen gaaw leen sedd bi yàlla bu ma ci mucc yàlla ci sama liggéey ndey feeñ